internet yi bàyyi xel SBT ñi ngi fii nga xam ne moom mooy centre culturel Douta Seck euh, maison de la culture ñëwoon si fi nga xam ne moom mooy euh, association bi nga xam si moom mooy AMA bi nga xam si ñoom mooy yëngu ci wàllu management ak agent artiste fii euh, bi nga xam ne moom la association bi juddu ak léegi ñu nag ak le secrétaire général Moustapha ñu lay nuyu. waaw internet yi waaw c'est vrai que trois ans lañ doon feete Et Alhamdulillah, on vient de, de bien le, le, le, le terminer. di di di ci di ci sant yàlla bu baax et di di di encourager les autres managers et puis di désolé aussi dañuy ñëwul quoi je sais que y a qui ont appelé qui ont eu contraintes et tout mais macha allah alhamdulilah ça s'est bien passé. ñaari fan la woon ñaari fan yi ngeen amoon ay ponk yoo xamante ne ko seen waxtaanee ak ay renforcement de capacité comme yu ci mel ni yàlla ak waaw euh, pour pour l' événement dañu choisiroon au ñu def benn benn conférence de presse boo xam ne astafurlah ah, au lieu ñu def benn benn événement boo xam ne day am ay fête affaire yooyu noonu on s' on organise benn benn benn panel sur deux jours mais question yëpp on l' avait c' des préoccupations c' loo xam ne gars yi dañu bëggoon waxtaane ko parce que ay manquement la ñuy amoon mooy waxtaane affaire management ci industrie bi fi mu toll ak changement yi fi am yëpp mais aussi waxtaane affaire numérique donc comme lépp si woon si ñu ne nañ ko def sur deux jours léegi man leen ko fàttalee ki ñu taxawal moom mooy secrétaire euh, bi nga xam si ñoom ñoo nekk fi Sénégal muy association AMA euh, mu mel na mais euh, si maanaam archive comme ni ñuy yëngoo ba ba léegi comprendre guñu fi nga leen bëgg fi nga ñu jógee si li nga xam moom mooy di secteur bi bi nekk ñëw ci foo xam si donc dafay dem a nga xam si ni moom mooy di mën a amal njëriñ waaw c'est vrai que le système bi dafa compliqué du artistes yëpp ñoom ñoo comprendre comme li ñuy waxtaanee fii tey muy différence bi am entre xam ak comprendre aujourd'hui par exemple da ngay da ngay am na manager yoo xam ne xam nañ leen mooy manager mais comprendre ñu lan mooy manager la même chose noonu la amee artistes yoo xam ne xam nañ luy artiste mais xamuñu lan mooy artiste xamuñu liggéeyu artiste xam nañ xamuñu taxawaayu artiste fi mu toll ainsi de suite donc responsabilité yi fu ne la nekk nekkul rek ci artiste bi nekkul rek ci manager bi mais ñun suñu rôle rek mooy xamal manager yi ne aujourd'hui nekk manager responsabilité bu rëy la nekk manager dafa dafa du du rek du rek tey comme ni mu meloon ñëw nekk ak sa benn nit ànd ak moom liggéey la boo xam ne ça demande d'avoir des compétence énormes et dans beaucoup de domaines donc beaucoup de domaines yooyu moo lay permettre yow nga mën a jël sa artiste yóbbu ko ci yenn niveau yi mais loolu yëpp nag pour nga mën ko ci arriver il faut nga am générosité bu toll nii euh, mën di euh, ni ñu ko mën a waxee di di waxtaan ak sa sa artiste di waxtaan ak sa sa sa sa kii. sa sa artiste ba mu comprendre direction bi ngeen jëm parce que direction bi dafay déterminer boo leen ci déggooyee day déterminer mu yomb yow ci manager bi mais boo mi ngi mel ni nga bëggoon yóbbu benn xar bu la toppul nga xam ne boo yëgee benn xar di ko yor ci buum di xëcc boo koy yóbbu moom bu kiiwulee bu comprendrewul wala déggulul la day metti ci nit ki c'est après la même chose boo yoree benn artiste ngeen bëgg ànd moom te nit la imagine malab bu dul dégg mais nit koo xam ne day faral xelam di xalaat seen ñaari xel yi boo leen mënul dem ba comprendre ante direction artiste bi ngeen war jël day compliqué parce que nit kuy réfléchir loolu moo loolu tax moo tax liggéeyu management ne liggéeyu management li tax mu métti c'est parce que liggéey la boo xam ne yow nit ngay gérer nit ki ngay gérer mënoo ko xën na xën na xëy fu mu la neexee mënoo ko yëkkati naka jaar droite jaar gauche il faut ngeen expliquer il faut ngeen comprendre il faut que fi ngeen jëm loo munti liggéey da war a boole ci numérique yi donc loolu moo taxoon tey ñu ñu def choix yi di yaakaar ne les gens ont aimé et je pense que les gens ont aimé xoolal démb démb quand on a fini fi lañ nekk presque ba 19 heures moins pratiquement la ñuy ñibbi parce que les gens étaient contents d'être là les gens ont aimé la la session tey gis nga waat la aujourd'hui aussi gis nga nit ñi ñi ngi fi ñi ngi sax dem séance photo yi ku nekk di waxtaan c'est parce que aujourd'hui ça ça montre on espérait nag vraiment que nit ñi nañ fi fees ba du ñu am fu ñu la pourquoi parce que ñi nekk ay jeunes managers dans ce pays dañoo bari mais nag je pense que managers yi ba tey conscient wu ñu ne dañu yor ay li ñuy def liggéey la bu boo xam ne dafa laaj formation conscient wu ñu man je pense que bu ñu conscient wu na ñëw yaanaa ici ñu may wax ne ma heure yi ñu ko def baaxul mais heure bi mooy heure liggéey heure liggéey la ci heure liggéey nit ñi dañ formé wu parce que ñii ñëw di loolu mooy seen liggéey ñii ñëw di échanger ak yow ñoom heure dañu waroon parce que ñoom dañoo yor ay plateforme di ko diriger ñi nga xam ne ay manager lañ manager ay nit yoo xam ne ñoom tamit dañuy nekk ci liggéey ñooñu ñooñu bu ñu mënee bàyyi seen liggéey ñëw yow bu jox la ci ñoom seen temps je pense que nit ñi war nañ mën a xam ne nit ñooñu kii amul heure pour manager parce que amul heure pour def musique amul heure pour dem kii ni ñuy liggéey ba 4 heures du matin am na ñoo xam ne matin la ñuy chaque jour wala tànk yaa ngi koy mën donc defal bilan 300 association bilan bi ci lu gàtt. d' je pense que initiative bi ñu teg nii mu tudd table des managers la première édition on avait panel des managers on l'avait organisé la première on avait organisé ça à la maison de la presse foofu la defee lancement association bi. on a créé en 2017 li taxoon bëgguñu woon dès le départ def ay affaires c' est parce que dañoo yaakaaroon ne li ëpp solo booy wax ci turu manager da nga def mobilisation na dégg na association Euh, kii les structures yi nga xam ne dérivées de l'État ak les ministères de la culture xam nañ kan mooy man Ama donc loolu moo tax Ama existence am c'est confirmé donc pour man ça c'est un acquis déjà tey projet yi nga xam ne c'est les projets les plus importants nga xam ne moom la ñuy liggéeyee actuellement ci domaine du Sénégal le l'association Ama est impliquée on a travaillé sur les droits d'auteur on a travaillé sur le sur le les droits de projet qui les, les statuts de l'artiste. On a travaillé sur le projet Covid B. c'est de grands projets et on a travaillé sur le, programme du ministère de la Culture, Inch'Allah, qui nous proposé pour 2021. Donc ça veut dire qu'AMA aujourd'hui e représentatif auprès des organisations professionnelles. Autre chose qui est important actuellement, moi, au-delà de ça, moi, membres yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay manager xam nañ association bi aujourd'hui on a une cellule en construction à Saint-Louis on a une cellule en et il d'autres zones yoo xam ne lu mel ni comme ay Tamba à Mbour les gens nous interpellent à Kaolack aussi on nous interpelle pour l'association donc ça veut dire que association mi ngi dox trois ans je pense que li ñu jot a am yëpp baax na 141 euh, personnes ont bénéficié du projet du du, du fonds Covid 141 personnes imagine sur une association boo xam ne ne juste en euh, euh, les activités ont commencé en 2000 2019 parce que 2017 lañ ko créé mais 2019 lañ commencé def suñu ay activité 2019 à maintenant donc ça veut dire qu'au travail alhamdulilah les les professionnels l'ont reconnu et on espère que dina gën a jëm kanam et on va beaucoup insister sur la formation parce que ñun je pense que fi gën a tax mooy travailler la mobilisation et la formation waaw. doon wax jafe-jafe yoo xam ne association bi ñu koy dund comme ci lu mel non je pense que comme tout le monde xam nga dëkk bi moom li fi manqué ñun tey bu ñu amoon ndimbal bu ñuy nëbëndee aux gens c'est juste que les gens nous offrent les moyens de former leurs membres juste. juste les moyens de former parce que aujourd'hui formation bi rek mooy tax tey ñu mën a gis njëriñ bi c'est là où on investit le mieux pour la génération au Sénégal et sur l'employabilité des gens nit ki bu nekkee ci benn liggéey gëm ko loolu mooy léppam lépp si tu lui donnes les moyens d'être formé day tax loolu nekk liggéey ci moom ba mu mën ci dimbal dimbali boppam dimbali ci ay njabootam loolu la monde bi soxla loolu la Sénégal soxla Sénégal dafa soxla aujourd'hui kenn ku nekk secteur bi nga nekk ñu jox la les moyens efficace pour nga mun a jaay sa boole jaay sa doole am xaalis yóbbu sa famille tant que les personnes ont tant que les gens ont ça da gis ne problème ak stress bi dafay gën a wàññeeku c'est les jeunes et les jeunes ont besoin de travailler te le monde la culture tey boo ko wëree ba daj ko 80 pour cent Donc aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de les former. Et la formation, donc, on demande que ça. Il y a Alpha de la, euh, de, de, qui gère la formation au sein de l'association, mais il se tue pour la formation. Il se tue pour la formation. Parce que moi, je sais les formations que les gars sont Mais c'est les jeunes, c'est les bénéficiaires qu'on demande plus davantage de nous gagner faire le pour nous la formation avec mon solution. ko wootee ñi wuy si la yombut te ngeen woote ñaari fan fii fees dell euh, lan ngay tàggoo dañu soxla formation bi dañu soxla formation bi donc ils sont là xam nga peut-être que les partenaires viennent nous accompagner comme la Casamance nu mu ko defee tey ça c'est bien euh, SODAV nous a accompagné c'est bien parce que aujourd'hui mooy li ma wax rek soxlawuñu dara lu dul nit ñi accompagner ñu mën a former jeunes yi association bi moom loolu rek la soxla bu ñu ko defee ñoom ñëpp sax seen liggéey day yow xam la moo tax parce que bu manager yi gën a comprendre relation bi ñu am ñoom ak yeneen partenaires yi nekk ci milieu bi day tax bu ñu soxlawee artistes li ñu war a def pour artiste day gën a yomb bu ñu invité artiste day xam manager bi day xam rôle pour que manager bi def li muy war def ak nan la war organiser travail artiste yi ba nga xam ne yow mi nga xam ne da nekk ci presse bi boo soxlaa artiste bi doo métti parce que moom da sa manager bi day comprendre mais artiste bi day comprendre njëriñ bi ainsi de suite kenn ku nekk je pense que loolu bu ñu ko yàlla mayee rek dinañ am lu bari on aura un grand accueil donc on invite les partenaires à comprendre que que d'accompagnement on n'a pas besoin d'autre chose on a juste besoin d'un appui financier pour les formations juste ça mbokk internet bàyyi xel SB ñu ngi foon fii nii ci panel des managers euh, bi nga xam si ni di faire seen trois ans anniversaire association bi association ama ñu ngi nag ak président ñu ngi lay ziar sëñ bi waaw maa ngi leen di ziar waa SBT di kontaan seen teewaay bi vraiment dafa neex nga woote ngi wuy si la surtout euh, chaîne bu mel ni yéen vraiment ça fait plaisir waral euh, booba léegi association bi mu def 3 ans tey ngeen féete ko fii di xam ne mooy blessé na ngeen defaale ay renforcement de capacité. lii rek dañ doon mandargaal suñu suñu ñetteelu at mais yàgg na def ay manifestations yu gën a mag yi sax def nañ ko fii euh, maison de la presse ak feneen ak feneen mais dañ doon mandargaal suñu ñetti a def at def formation échange indi ay spécialistes yu seen xam ba xam-xam màcc ci seen domaine ñu échange ak suy membre yi. côté ah, ma arts yi nga xam si yéen leen di menacer yan jafe-jafe ngeen ci gën a am souvent. waaw xam nga rek loolu diggante nit ak nit day am lu ne day am wor day am mbetteel day am lu mais je pense que ñun suñu métier métier bu ingrat la moo tax quoi donc euh, ñu ngi koy nangu ñu ngi naxante. parce que dafa métier boo xam dafa laaj laabiir laaj compréhension laaj muñ laaj simple lu mu laaj moo bari a ah, lépp lu nit ku baax war a am rek aménagé war na ko mel quoi donc yombul mais ñu ngi ci. artistes yu bëri pour dundee seen art fii nga xam ne moom moo ci réew mi day xaw a métti yan stratégie ngeen mën a am pour teg ay projet pour mën a jaay li xam moom mooy industrie musicale bi en l'extérieur waaw dafay des si manager bi quoi ku nekk rek xam olof olof léeb na ko wuute nu mu la gisee noonu lay ëwalee donc am na ne am na man par exemple am naa jaar-jaar amul benn artiste boo xam ne dama tiim di ma fi yenn yi amul fi dem sax mais pour ñiy doog a dugg ci métier bi rek dama leen daal ànd ak sérieux tey am ambition dem jàngi lu leen mag ñu wuti ko loolu la sa artiste respecté rek liggéey su amul respect rek du am avancement quoi donc pour artiste respecté rek day fekk yow nga am loo ko mën a nga xam ne yow li ngay def xam nga ko. mel ni woote ñu wuy si la yombul nga woote ñu wuy si la yombul macha allah démb ak tey yëpp ku ñëw fii fekk na fi maanaam nit ñu bëri macha allah ñu si leen euh, ban ban ban lan ngay tàggoo ñi nga xam ne ñu ngi dama ci ànd ak samay xarit samay naataangoo ñoo xam ne ñoo bokk association bi et secrétaire général bi nga xam ne vraiment dafa ma dafa dafa sama liggéey responsable formation ñoom at yi kii sama kii mooy sama doomu xol donc ñoo ñëpp dañ ci jàpp xam nga benn nit mënul dara quoi dañ ma fal daf ma njiit mais kenn ma faxatal xam nga jiite mbooloo neexul parce que âge yi bokk ñu mais ñoom ñoom ñëpp ñoo si jàpp et puis voilà donc moo tax ñu ñi am lu ñu war a am nii tey quoi merci ok